أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi ginnaaw loolu ba tey noo ngi ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya aaya yi 138 139 140 141 aaya yi ñu ngi jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy xurmatu ittixaasil kaafirin awliya min dunil muminin sunu borom mu ngi nuy tere ñu jël yéeféer yi di allié ak ñoom far ak ñoom bàyyi jullit yi li sunu borom di nu tere tey mooy feebaru xeet wi mooy am ay xarit yu dul jullit jël ay yéeféer def leen ay soppe def leen ay mbokk def leen ay xarit bàyyi jullit yi tey loolu mooy li am ci àddina bi li ëpp ci jullit yi seeni xarit ak seeni am di jàmm ak seeni soppi ay yéeféer lañ te loolu dafa araam ci islaam dafa araam nga jël kudul jullit far ak moom boo ma la sax yenn saa yi far waaye di nga gis yenn saa yi benn nit mel ci melokaan yoo xam ne du ko mel sax ci ab jullit loolu nag moom dafa araam ñaareel bi mooy albaisu linnaas ala itixaasi alkafirina awliya wa ragbatu fi l izzati wa rafi lmazala wa haza batilun falizatu lillah wala tutlabu illa minhu taala bilimani wa tibai manhajihi li ëpp ci nit ñi li tax ñuy jël yéeféer yi da leen def ay xarit ak ay soppe ak di bëgg ci ñoom dañ naan ñii kat ku laqatu ci seen ginnaaw comme ñoo yor doole ñoo yor kattan nangam ak nangam ñoo yor alal su ma nekkee ci seen ginnaaw kon dina am ci alal ji wala danañ ma yiir wala danañ ma aar wala day tax duma torox mu ne lii nag moom képp ku am pas-pas boobu wa haza baatil pas-pas boobu neen la caaxaan la du dëgg ndax fal izzatu lillah taraanga tedd nga yàlla moo ko moom wala tutlabu illa minhu ku bëgg teddange ku bëgg taraanga yàllaa ko yor ab yéeféer yoru ko ba ngay làqatu ci ginnaawam ba ngay fari ak moom ba ngay allié ak moom ba ngay ut ci moom ak ndimbal taraanga googu nekk ci yàlla suñ ko soxlaa nan la ñuy def mooy dañ koy sàkku ci moom waaye dafa am yoon wu ñuy jaar mooy bil iman jaar ci ngëm nit bu bëggee yàlla defal ko taranga adduna ak alaxira day am ngëm yàlla waaye day topp manhajullah day topp yoonu yàlla tabaraka wa taala ñetteel mooy xormatu mujalasatu ahlul batil mbokk yi yëg leen ni dafa araam ci ab jullit dafa araam ci ab jullit muy toogandoo ak caaxaankat xurmatu mujaalasatu ahlul baatil daa araam ab jullit muy toogandoog caaxaankat ida kaanu yaxduuna fi ayatillah rawatina nag bu ñu demee bay xuus ci aaya yàlla yi di ci wax ay caaxaan ndeysaan tey maa ngi seetaan youtube benn waaye bu tudd sang dañ ko invité woon ci benn télé waa jooju tudd Tunkara émission bi muy animé nu mu tudd ah Sénégal ca kanam woo waa ji waa ji ne day day moom mission la yor pour nit ñi liggéey xaw ma jaamu yàlla nangam nangam mu ne ko waaw mission boobu léegi ban aaya nga koy daliloo ci alxuraan la ilaha illa allah waa ji boo gisee aaya alxuraan yi muy indi ak li mu koy firi ak li muy jaxase aaya yi sa yaram day daw waaye lii moo am tey ci sa mooy ay nit yoo xam ne caaxaankat lañ ba pare ne ne dañuy wax ci lislaam fekk kenn ci ñoom li muy wax xaw moom sax ci boppam xamu ko aaya yi mu doon indi lu mu wax rek waa ji ne ko loolu firiwul lii de du lii de du lii du lii te waa ji ab journaliste la sax yàlla xam na ne jàngul alxuraan waaye journaliste bi moo gën a dégg waa ji diine te moom nee na ci diine lay wax kon caaxaankat kenn du toog ak moom rawatina nag bu fekkee aaya yàlla yi la ñuy jël di ko fawee comme ni mu amee tey ci jamono nga xam ne aaya yàlla yi la ñuy jël di naxaate di ko firi nu mu leen neex waaw di ko yëj di ko mokke loolu képp koo xam ne xam nga ne kii caaxaankat la aaya yi lay caaxaane war a toog ak moom mbokk yi ñeenteel mooy arrida bil kufri kufrun wa arrida bil ismi ismun soo gisee ab yéeféer li mu nekk nga kontaan ci yow yéeféer nga comme moom soo gisee kuy def bàkkaar bàkkaar bi mu def mu nga kontaan ci yow yi bàkkaar bi yow am nga ci kon ab yéeféer la muy def minimum na la metti boobu sa biir xol bu fekkee mënoo ci dara waaye képp ku gis yéeféer def dara loolu mu def nga kontaan ci yow yéeféer nga comme moom laa sakk waaye bu fekkee waa ji dafa def bàkkaar aussi bàkkaar bi neex la yow tamit bàkkaar bi am nga ci juróom-benneel juróomeel mooy takafal allahu taala bi izzatil mu'min yàlla moo garanti ne jullit ñi waajina bi di jeex dañuy siggi dañuy ànd ak teddange jullit ñan ñu dëggu as-sadiqin waaw lu àddina bi lëndëm lëndëm lëndëm lu metti di coono yi bari nattu yi bari jullit yooyu nga xam ne way gëm yàlla lañ nga xam ne dañoo dëggu ci kaw rek la ñuy nekk ci kaw rek coow li lu mu bari bari ci kaw la ñuy nekk kenn du leen mënal dara waaw seeni noonu dara lañ leen dul mënal ay poussière bay bëri rek li waa ji di wax ne jinne bu buggee jommal jinne tàkk-tàkk mooy bari loolu moo am comme tey mbokk yi kon ñeenti aaya yooyu bi iznillahi tabaraka wa taala nga xam ne ñu ngi ci jëlee juróomi njàngale min hidayatil ayat loolu la ñuy fas yéenee def tey sunu dars bismillahi arrahmani arrahim بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نسيب قالوا قالوا ألم نستهوز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سنبرم سبحانه وتعالى moo nuy leeralal tey ay mbir ci téeram bi pour ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi ne bashir albisharata alxayriya allazi tataasaru bihi bishr maa yaltaqi alayhi xayran kaana aw charran baatu bashir li muy tekki ci arab mooy bégalal bégalal mbokk yi ku ñuy bégal ci ñun dafa am baat yoo xam ne bu ñu la ko waxee rek bégal nañ la kontaan loo nañ la comme comme allahu akbar da ngay da ngay da ngay kontaan wala da ngay da ngay jooy boobu ci baat yi la bokk ak yow yëg nga ne embauché nañ la yow yëg nga ne sa soxna am na doom yow yëg nga ne am nga visa est-ce que yii ñu wax yëpp nit da ci mer mbokk yi ah loolu la ñuy bégal loolu mooy bégal ñu wax la lu la neex lu kontaan loo loolu la yàlla wax waaye fii xoolal yàlla dafa ne bégalal ba pare mu ne almunafiqin naafiqi kon dootul nekk yëgle dootul nekk dootul nekk bégal waaye lan lay nekk yëgalal xamalal almunafiqina naafiqi bi anna lahum ñeel na leen ëllëg mu ngi leen di xaar yawma alqiyama azaban alim mbugal mu rëy allahu akbar sunu borom nee na muhammad xamalal naafiqi mbugal mu métti mi ngi seen kanam mi ngi leen di xaar waaw kon dina laaj su fekkee borom bi dane nanu bégal naafiq yi ñu xamal leen ne mbugal mu rëy mu ngi leen di xaar kon war nañu laaj mbokk yi ñan ñooy naafiq yi ba ñun mbugal googu yàlla dencal naafiq yi ñu bañ cee bokk ndax li yàlla wax moom sikki nekk ci ne dëgg la bashiril munafiqin yow muhammad xamalal naafiqi bi anna lahum am nañu dencal nañ leen ëllëg ñeel na leen azaban aliman mbugal mu metti mu tar mu ngi seen kanam bis bu ñu génnee àdduna na cëpp ci bàmmeel la hawla wala quwwata illa billah war a jóge bàmmeel dem àllaaxira sikk nekk ci ne duñ fa fekk lenn lu dul mbugal tëjal porte bi suñ borom nee na jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu xamalal yow muhammad alayhi salaatu wasalaam naafiq yi buggal mu leen di xaar ñan ñooy naafiq yi lan mooy nifaaq ma maana an nifaaq lan mooy ak naafiq wa izhaarul insaan li gayri ma yubtin ak naafiq mooy nit feeñal loo xam ne du dëgg ci moom maanaam li nga wone ci biiti nekkul ci biir loolu mooy naafeq waaw izhaarul insaan nit feeñal li xayri ma yubtin lu wuuteeg li mu denc maanaam yow lii nga wone ci biti du dëgg ci biir loolu ak naafeq la fa yaxfi bi afaalihi maa yudmiruhu qalbu wa misaalu zalika man yuzhiru liman wa huwa ala alkufri aw man yuzhiru lil axar xubban wa yaxfi lahu baxdo wa adawa suñ ci doon joxe misaal yenn saa yi nit day nëbb yenn jëf jëf yoo xam ne dafa wuuteeg li xol bi denc misaal bi mooy nit feeñal ngëm ngëm ngoo xam ne ci kaw la fekk ak kéeféer nga nëbb ci biir wala kenn ku lay wan ne dama la bëgg dama la sopp waaye mi ngi la dencal mbañeel ak mbon ci biir xolam waaw naafiq moo koy baaxul su fekkee ci lislaam nag lan mooy naafiq mooy izhaarul islaam fii ma yubtinul kufr nga feeñal islaam ci kaw jullit fekk ak kéefir nga nëbb ci sa biir xol loolu ci islaam lay teg moom naafiq nag dafa am ay façon wa hiya anwa ay façon la waaw borom xam-xam yi sax nee na ñaar la an nifaaqu nawayni an nifaaqul akbar am na naafiq goo xam ne gu mag la waaw pas-pas la wa huwa ma kaana fi asli diin wa yakunu haza nawu muxrijan min al islam naafiq gu mag googu nga xam ne pas-pas la nag nga xam ne nit ki da koo fas loolu day génne nit ci lislaam waaw ba pare du yem ci génn la ci islam borom day nekk fi darakali asfali min an naar ci biir safara lay nekk ci xóoñ bi kal bu mu jugi foofu la borom di nekk aaya yi ñëw na ci jàng nañ ko ñaareelu naafiq gi mooy nifaaqul asgar mooy naafiq gu ndaw moom tamit pas-pas la waaye ci ay cati diina la nekk ci ay furo la nekk mu waaye mbokk yi bu ci mën a nekk ci ñaari naafiq yëpp lu jara moytu ndiku la bu mag beeg bu ndaw bi bu ne nit moytu ndik bu bu mu ci am benn wala boo ci amee benn it nga xeex ak sa bopp pour mu dañ naafiq ay mandarga la as sifaatul munaafiquun waaw naafiq moo gën a garaaw su ngeen gisee lislaam yegg fii tey mooy naafiq yi ñoo ci bari xam ngeen ne julli ñi bañ nekkee màkk boobu àddina bi ñaari nit rek ñoo fi nekk mooy kan ak kan jullit ak yéeféer ba yenente bi demee Médine fa la ñetteelu groupe bi juddu mooy naafiq yi ñu dugg ci lislaam nga xam ne dugg wuñu seen sago dugg wuñu ngëm waaye dañu dëgg dañu dugg ngir islaam ëpp na leen a doole ba pare ñu nekk ci biir di yàq loolu nag mooy rogalaat ba tey mu nekk ñetti catégorie su ngeen jàngee baqara njëlbeenu aaya yi juróomi aaya yu njëkk yi baqara jullit ñi lay waxal ñaari benn aaya moo ñëw di wax ak yéeféer yi inna allazina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lan tunziruhum ñooñu benn aaya boobu rek lañ moom xoolal aaya yi ci des yëpp ba nga yegg ci hizib bi naafiq yi ñoo ko moom mooy ñooñu di tudde seen bopp jullit te duñ jullit waaw am nañu ay màndarga yu dul jeex na màndarga yooyu ab jullit na moytandiku balaa mu ci am benn sifaat ba pare mandarga yooyu boroom xam-xam yi dañ ko xaaj daf ko ñaari xaaj yoo xam ne dafay feeñ ci ay waxtu ak ay place ci jàmm wala ci xeex wala yeneen yi di feeñ ci xeex kese yépp benn baaxu ci ab jullit na moytandiku lool waaw fen ci mandarga naaféqi la bokk wor joxe rendez-vous foo sëkku trian xiyaan ah ñu jox la ndénkaane nga sànk ko kàccoore saflam bi dangiral farag yi féer yi noonu jullit yi di pexeel jullit yi ak di leen wor yépp màndarga naa féq la di xas yonent bi nekk ci di ngay gis ku nekk ci diine islam ba pare di sayite rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala di ras di sayite dëkk ba rasulullahi nekk wala dëkk ba mu juddoo nga koy tuutil oo yépp màndarga naa féq la mbokk yi mandarga yu bëri bëri bëri la waaye maa huwa jazaa'ul munaafiqiin lan mooy fayu naafiq yi ëllëg yowmal qiyaama naafiq yi yàlla jàngeen yàlla mu ne innal munaafiqiin fi darikal asfali minan naar fi gën a metti ci safara fa lañ leen di dugal kon fayu naafiq ëllëg yowmal qiyaama ñëpp xam nañ ko mooy safara dañu la yàlla musal kon ci tënk bu gàtt loolu lañ bëggoon wax ci ñan ñooy naafiq yi ñooñu yàlla wax yonent bi fii bashiril munafiqin bi anna lahum azaban aliman léegi nag sunu borom bëri naa leen wax ne ci dars yi sunu borom saa yu waxee melokaan boo xam ne day tax nit baax du ko aljanna dina wax ñooñu ñooy ñan zalika alkitab la rayba fii hudan lil muttaqin question bi mooy kon man humul muttaqin mu ne allazina yuminuna bil gayb yuqimuna as-salaa wa mimma razaqnahum yunfiquun wallazina yuminuna bima unzila gis nga yàlla day wax ñooñu ñu baax ñi gis nga fii bi mu ne bashiril munafiqin bi anna lahum adaban alima kon ñan la mu ne allazina ñi nga xam ne yattaxisuna ñooy jàpp alkafirina yéeféer yi awliya daf leen ay péete far ak ñoom kon bépp jullit bu jël ay yéeféer daf leen ay soppe ay am di jàmm yéeféer nga min dunil muminin ba pare nga bàyyi jullit yi te loolu am ay jullit yoo xam ne li ñuy tiitaroo ay yéeféer nga gis benn yéeféer wala kenn ku bon nga gis ku ne sama xarit la ndax nangam nangam xoolal borom bi ndeysaan jalla jalaaluhu sunu borom dafa mel ni aaya yi aaya njommalant la aaya yi day jommalaate ndax lii def garaaw gi mu garaaw moo tax yàlla mu ne ayabtaguuna indahumul izza waaw ñoom taraanga ak darajaak kattan la ñuy uti ci yéeféer yi xanaa yëguñu fa inna al izzata lillahi jamian taraanga yàllaa ko moom lépp wala waaw yow mi tax nga dem ci yéeféer bàyyi sa diine yow mi tax nga dem uti ku xam ne gëmul yàlla nga bëgg ko sa xol sopp ko walal tey li am ci àddina bi bu ñu reyee jullit ñi kenn du wax bu ñu laalee benn yéeféer rek ñëpp jóg gis naa ci événement bi am France temps yi passé Facebook jullit yu bëri changé seen profil def ko bleu blanc rouge ñaata jullit lañu rey ci àddina bi ñaata ñaata benn paa bu bëri wax tey dafa ñëw Sénégal di di lay raami comme ñooñu ci ñooñu la mbokk rek ñu mel noonu ma génneel ko Burma Birmanie ni ñuy saafe jullit ñi di leen lakk man ko xoolal lii mu ne ma lii lan la ma ne ko ay jullit yu ñu lakk saaf leen comme ni ñuy saafe yàpp li lay woon ne jullit ñi am na ñoo xam ne sax xamuñu mu ne lii est-ce que lii am na lii am na ci àddina bi ah ko yow da ngay nelaw yow yëgaloo xew demal demal ñun dañuy jàng amuñu sa jot tey russe ngi nii di bombardé Syrie France kazali France lan mooy prétexte ci damay bombardé Syrie ndax ñi defoon problème événement bi en France dañ faa fekk benn passeport syrien est-ce que loolu logique na mbokk yi dangaa ñëw fenn nga fekk fa benn carte d'identité benn waay rek su benn sàcc demee loolu am na Sénégal da ngay gis ku dem sàcc fenn sànni fa carte d'identité jàmbur wala wala yéen dund leen loolu du jeex naka la ay nit di jëlee ay yéeféer di leen def ay xarit ay soppe ay ay ay ay ay yenn saa yi sax nga gis ci ku ci tuddee yéeféer doom jullit jullit bu jël doomam tuddee ko yéeféer man sama école am na xale boo xamante ne yéeféer lañ ko tuddee te jullit papa ma yëpp jullit lañ léegi papa ji bi mu xamee ne def na musiba musiba bu rëy la def xam na ko léegi dafa ñëw ne jëwriñ laa ko tuddee jëwriñ buggul ku wax tur bi mais ñun su nekkoon tur boobu lañ koy woowee de mu ne lu tax ñu ne ko tur boobu moo nekk ci këyit yi kenn du ko fi woowee beneen tur mu dem fi jour examen ñuy wax ñuy rappel tur boobu fekk xamul loolu lu mu grave xam ngeen xale bi nu mu tudd borlot borlot borlot lu muy teg nga bàyyi fi Mouhamad bàyyi fi Ahmed bàyyi fi Abdullah bàyyi fi Moustapha al Bachir Khalilur Rahman nga dem di tuddee sa doom lu kenn xamul lu war a loolu parce que ay taraanga rek ay taraanga mbokk bi toogan fi keroog loolu la wax jullit boobu ñu dem suul ci armeelu yéeféer yi lu tax parce que ki yor dëj bi moo ne man bu ngeen ko yóbbee ci jullit ñi du ma rey sama nag bi bu ngeen ko indee fee nag ma rey nag bi gars yi daal dem yóbbu ko ci yéeféer yi ñu rey nag bi wala loolu la waa ji wax fii keroog seen kanam nee na ki yoroon dëj bi dane moom mooy financé dëj bi suñ ko yóbbee ci jullit yi moom du financé suñ ko indee ci yéeféer yi mu financé gars yi daal di jël paa bi yóbbu ko ci yéeféer yi ah wala ah waaw loolu loolu musiba la mbokk yi xoolal suñu borom lim ñu bëgg a wax pour ñu bañ a dugg ci yooyu lan la ñu wax ayabghuuna indahumul izza waaw da ngeen di dem di uti taraanga di uti daraja al izzatu al ghalaba da ngeen di di uti ci ñoom ndam ak teddange xanaa yëgu leen ne fa inna al izzata lillahi jamia allahu akbar taraanga ak daraja ak am am ak lu mu mun a doon yéeféer amu ko yàlla moom lépp sunu borom ne waqat te dëgg-dëgg nazal naa wàcce naa aleykum ci yéen fil kitaabi ci sama téere bi di alxuraan maa ci wàcce ay aaya an li wërtee mbir isa samitum bu ngeen déggatee aayatillaahi aaya yàlla yii di alxuraan bi yukk far ñu koy weddi yukk faru biha ñu koy weddi di ko diinak di ko diingat wa yustahza ñu koy yëjji di ko reetaan di ko moke fala taqudu maahum bu leen toog ak ñooñu di def loolu di leer na wala leeru yéen ñi di seetaan fii théâtre yéen ñëpp da ngeen di toog ñuy xas alxuraan di saboté aaya yi ngeen toog di reetaan ah su ngeen jàngee alxuraan da ngeen yàlla mu ne wala taqrabu zina saa neex bi mu yàq aaya ci alxuraan lu mu wax taqraboo gars yi di ree ñëpp keke keke keke keke ay théâtre yi Sénégal yëpp ay ay alxuraan lañ ci yàq mais doo dégg mu kenn jullit bu wax wala musiciens yi dañuy jël alxuraan léegi ngeen dégg fii nii soirée bi ñu commencé jël ayatul kursi wala jël amana rasul wala jël benn aaya di ko yàq wala di ko saboté ci biir alxuraan bi wala yàlla lu mu wax waxuma dara nga yàlla ne su ngeen déggatee ci sama téere bi laa ko wàcc an iza sami'tum bu ngeen déggatee ayatillahi yukfaru biha ñuy weddi aaya ya- yàlla yi ñaata nit ngeen gis ñu toog ci télé beeg rajo bi di weddi aaya yàlla yi war leer na ne kii li muy wax aaya yi da koo weddi ñaata kilifa diine ñaata borom xam-xam nga gis ñuy wax loo xam ne dafa safoon ak yàlla li mu wax ñaata duñ ci yam yenn saa yi wa yustahzau biha ñu koy ree di ko xas fi fan yi li ñu wax muuraay muur kanam muur kanam dégg ngeen fi gars yi fan yi li ñu ci wax lu nekk la ci sénégalais yi wax ñi dangiral ñi loolu fan lañ jëm te lii yàlla moo ko wax mu ngi nii ay texte la yoo xam ne amul commentaire yàlla mu ne bu ngeen dafa déggatee loolu ñuy weddi aaye wala ñu koy reetaan di ko moke di ko caaxaane fala taqudu maahum yéen bu leen toog ak ñooñu di def loolu xataa yaxuudu fi xadisin gayri ba ñu xuus dem ci beneen waxtaan bu dul boobu fekk ngi wax loolu bu leen fa toog maa saf léegi waxuma la toog waaye ñun ñooy bokk ci ñuy tàccu wala mbër yi fii koo fi wax mu ne du ma dem stade fii ab est-ce que am na kuy dem fii stade di seetaan ji laa amul gis nga kenn du yëkkat ci loxo mais est-ce que du nu seetaan combat bi ci télé yi alors looy wax bi ki demul stade ak ki toog di suivre action yi comme benn paa xoolal nekk ci saalam de di julli timis mbërëm di bëre mu dégg ñu- ñu tudd turu mbër bi ñu ne yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko paa baa ngi ci deuxième rakk mu ne du jóg de du jóg de tension bi moo ko jàpp ba mu ne du jóg de du jóg eh astaf subhanallah fekk da doon julli waaw fekk mu ngi julli waa kër gi jaxasoo ñu yaakaar ne dañoo dañoo daan mbër bi ndekk paa bi la ñuy ree fekk doom yi yuuxu nañ rek ah mu defe ne ñu ne yëkkati nañ mbër bi rek mu ne du jóg fekk mu ngi julli xoolal kooku fu mu egg ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam dund ngeen ko ci biir dëkk bi ni ngeen koy gisee laa koy gisee na leen yàlla jubal yàlla mu ne fala taquudu bu leen toog ma ahum ak ñooñu ak ñoom hatta ya xuudu ba ñu xuus ba ñu génn ci waxtaan boobu fii hadisin ci waxtaan boo xam ne xayrihi du beneen beneen bu dul bi ñuy wax bu ngeen lànkee nag bañ a jóg toog frankolaay ci télé bi wala toog ci mbooloo boobu wala ci grand place boobu innakum kon isan yéen ñii innakum yéen ñii isan kon misluhum yéen ak ñoom yéen a yem yéen ak ñoom yéen a yem li leer na de kon bëri na ku fi naan man du ma def nangam ak nangam waaye am nga ci bàkkaaru ña ko def lu ko waral da ngaa toog ci place bi wala da nga ci da ngaa diglu wala da ngaa kontaan wala wala waxoo ci dara moo tax yàlla nee na yéen ak ñooñu yéen a yem su boobaa nag luy seen fay borom bi ne inna allaha yàlla jaamiul munafiqin wal kafirina fi jahannama jamian daal leen am na ñaari nit ñaari catégorie nit ñaari mbooloo kenn munta fexe ba duma leen boole ñoom ñaar ñooñu ci biir safara inna allaha yàlla jaamiul dana boole almunafiqina nafiqi wal kafirina ak yéeféer yi fii jahannama ci biir safara jahannama jamian mboolem seen ñaari groupe yooyu naa leen dugal safara mbokk yi su yàlla waxee lii ana kan mooy sol keroog robu avocat ne nafiq yi duñ dugg tey xam nga tey nouvelle bi ma gën a métti tey ci sama dund tey laa ko jot ah nouvelle bi ma dégg tey ci suba nga xam ne ba ma commencé di dund ba léegi mosuma jot nouvelle bu méttee noonu xam ngeen lan la association des imams góor jigéen ah association des imams góor jigéen ah ah man kay loolu moo ma jaxal te ki ma ko wax gëmuma ne fenkat la gëmuma ko te du du sax du sax góor ndeysaan jigéen moo ma ko wax ndax dafa am liggéey fan yi ndekk ci ci loolu lay liggéey waaw ñëw di ma laaj question bi ne ma mbetteel bu rëy bu ma am dama am liggéey dem ndeke man ci ñuy faj góor jigéen ñi laa bokk ñu recevoir association imam yi Afrique du Sud Afrique du Sud lu mooy congrès lañ def congrès ren góor jigéen ñi Afrique du Sud mu ne ñuy recevoir mbooloo yi ba association imam yi ñëw góor jigéen xam nga loolu kon mun ma ko wéet mu ne ma ren lañ def congrès góor jigéen ñi Afrique du Sud association yëpp di ñëw mu ne moom ba mu am mbetteel rek ñu ne association imam góor jigéen yaa ngi nii di ñëw la ilaha illa xoolal loolu nu mu grave kon waaye nag du mbetteel de parce que Sénégal da nga daan dégg ñu ne kilifa diine bi góor jigéen la man dégg naa fa bataay am ñoo xam ne wax nañ ma seen tourne ay góor jigéen lañ waxuma góor jigéen lañ de waaye nit ñi wax nañ ko nit ñi wax nañ ko ay kilifa diine yoo xam dañuy wax seen tourne taf dëkk bi ñëpp xam nañ ñi may wax nit ñi ñoo ko wax xaw ma dëgg la xaw ma dëgg waaye nit ñi wax nañ ko loolu nag su fekkee am na kon ëllëg ak si biir bu ñu nee association imam góor jigéen kon est-ce que neex naa weddi nga ah dal nañ yàlla sàmm kon ngeen gis mbon mi fu mu fu mu romb mbon mi romb na fi ngeen di xalaat ah kon affaire yi am na lu mu laaj dafa laaj taxawaat dafa laaj yaraat dafa laajaat conscientiser dafa laaj ni ñu yàccaarale nii fi mu nekk nii ci woote ci yoonu yàlla ni ñu yàccaarale ci taxaw ci islam ndax menace yeeg lépp xam nga femme bi lu moo sax yow mii est-ce que sax war naa wax ak yow yow mii est-ce que yow nangam ak nangam nag waaw yow mii est-ce que sëy yaa nekku ci say tànk yooyu wax na ma ko ma ne ko ñun daal yàlla lañ jox sunu mbir qul lan yusibana illa ma qad kataba allahu lana lu dal suñu kaw rek lii la yàlla namm ci ñun waaw buñ dundee danañ dund bu ñuy dund tam danañ dee loolu moom bu yow ñu sóoraale ko suñu bopp mais almuhim na nekk ay jullit na nekk ay jullit ñi ngeen caaxaan yi ni mu bëri suñu dëkk bi léegi ay waame la guddeeg bëccëg caaxaan guddeeg bëccëg guddeeg misaal laa joxe léegi xoolal stade bi ñii ngi yendoo football bu ñu yendoo bu ñu footballoon ba ba ay timis sax ay gee dañ leen di bàyyi ñu dem ñibbi léegi boo génnee ci stade bi encore nga nekk ci soirée bi ba kañ ah ah lii kañ la nar a tasati ba kañ fan lañ jëm foo ñu nekk ay jullit góor góor yar suñu bopp waaye yar suñu njaboot surtout surtout ku am ci yéen njaboot bu yow mu takk xar tànk tubéyam sinon di nga am mbetteel te di nga jooy waaw mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na allazina naafeq yi mooy ñi nga xam ne ba tey yatarabbasuna ñoo ngi toog di xaar bi kum ci yéen waaw waaw yatarabbasuun yantaziruna mata yaxsul lakum inhizam aw inkisaar gis nga naafeq day nekk ci julli di ba pare toog di xaar defetu julli di defetu julli di lay xaar bara yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yatarabbasuuna bikum ñoo ngi toog di xaar ci yéen nattu dal leen ngeen am benn defet ñu commencé voilà voilà tay jullit lañ amoon naa amoon naa ay gars yoo xam ne maa ngi ñëw ma dëkk temps yi Afghanistan taliban yi di xeex ak américains yi bu américains yi bombardé ah bañ génn ko journal daf daf koy jaral mu woowi ma kaay nga xool sa gars yi niñ leen def mel ne man maa fi toogaloon jullit yooyu loolu moo am tey ci àdduna bi day gis ñu rey ay jullit nga gis ay nit jullit kontaan waaw di xaar defet jullit yi am defet jullit yi am nattu xoola màkk affaire màkk bi nii am nañu ci kontaan affaire bousculade bi am màkk man gis naa ay sénégalais yu ci kontaan waaw waaw naar yi la sacrifice bii i i gi loolu baax na ci ñoom ni ko déet ay jullit li ay jullit du affaire naar li islam la mais mënoo leen wax ba nu dégg ndax fu nu toll la sori ba pare dafa am yeneen yu ñu dugal seen bopp ay farfarloo waaw ay far ay kenn xamul ngay gis ay jullit tey di xaar ci ay jullit defet ak nattu ah yal na yàlla dimbali naafeq yi ñooy ñi nga xam ne dañuy xaar ci jullit ñi ay nattu yu leen yàlla teg fa in kaana lakum fathun min allah qaalu alam nakum maakum kañ la ñu bëgg a far ak jullit ñi bu ñu nit ñi gañee nag ñu nit ñi gañee nag ñu ñëw ne allahu akbar allahu akbar di di di yuuxoog di manifester di wane ne ñoom jullit lañ waaw ndeysaan bu ñu amee fat lii yàllaa ko doon wax yonent bu yonent bi gañee rek nga gis naafeq yi ñëw wër ko waaw dara nga ji de ñun dañ cee war a am ndax ñun ci julli di lañ bokk waaw alam nakum maakum ñu ak yéen ñoo àndoon wa in kaana lil kaafirina nasibun qaalu alam nastahwiz alaykum dégg nga de sunu borom nee na wa in kaana lil kaafirina nasib bu fekkee yéeféer yi am cër ñoo gañee ba tey de ñoom naafeq yi ñëw ci yonent bi qaalu ñu ne alam nastahwiz alaykum ñun ñoo demoon di tiital naafeq yi pour ñu trembler pour ñu tiit ñu leen di wax jullit ñi force yi ñu yor pour ñu ragal wa namnaukum min al muminin ñu tere leen jullit ñi su jullit ñi gañee ñu dem ne fa lañ bokk bu jullit ñi bu yéeféer yi gañee ñu dem ca yéeféer ya ne ñun ñoo fexe ba ba jullit ñi tiit ndax yéen doole gi ngeen yor waaw gis ngeen wa namnaukum min al muminin ñun ñoo fexe ba tere jullit ñi xeex ak yéen moo tax yéen ñi ngeen gañee sunu borom nee na ñaari wax yi yëpp waa ji def dem ci jullit ñi ak ci yéeféer yi tallaahu yàlla yaxkumu dana atte baynakum seen diggante yowmal qiyaamati yowmal qiyaam ëllëg keroog yàlla dina atte mbir yi dana ko leeral ba mu leer nañ waa ji defoon loolu kon ci àddina bi dina yomb nga nekk fi di def lu la neex waaw mooy tey li politiciens yi di def politiciens yi bu bu xew-xewu diine yi di commencé am nii fu nekk la ñuy daw fu ñu demee dafa lañ bokk ne taalibe laa ci kër gi buñ demee géejawaay ne taalibe laa ci kër gi buñ demee Pikine taalibe laa ci kër gi buñ demee caare waaw yow da ngaa mën a nekk ñetti taalibe benn seen rek nga mën a nekk taalibe mais fu nekk taalibe nga fi mooy mu fu naa féq jullit mënoo bokk fépp fenn rek nga mën a bokk benn ci mooy islam mënoo weex ñuul muzabzabina bayna zalika la ilaha ula wala ilaha ula bokkoo fii bokkoo fee loolu mënul nekk jullit benn couleur nga war a yor jullit yi nga war a faral jullit nga war a bëgg jullit mooy sa mbokk yéeféer mooy sa noon bu weexee ak dafa ñuul ak nu mun a mel benn noon dong nga am mooy ki la yàlla noonu loo benn soppe nga am mooy ki la yàlla bëggloo mooy jullit jeex na mais xool leen tey xam ngeen ne li may wax am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ak ay jullit bëgguñu leen sax gis bëgguñu leen teg bët ñu leen gisee sax seen xol yi day métti waaw te boo amoon ab yéeféer léegi nga dem rey xar danoon yàlla dimbali sunu borom subhanahu wa taala nee na fallahu yàlla yaxkumu baynakum dana àtte seen diggante yowmal qiyaamati waaye yàlla ngi jox avertissement boo xam ne at baadina bi di jeex coow lay bari rek pënd poussière mooy jóg waaye li yàlla wax mooy nekk dëgg yàlla nee na walan yaj'ala allahu lil kaafirina ala almuminina sabila walan yaj'ala allah yàlla nee na du ma mës a def yàlla du mës a def alkaaf lil kaafirina ñeel yéeféer yi alal muminina ci kaw way gëm yàlla sabilan yoon boo waxee aaya bi nag xëy na kenn ku gàtt xam-xam ci ñun wala gàtt xel naan waaw naka la yàlla di waxee yéeféer du am ndam ci kaw jullit te tey jullit yi rek la ñuy rey mais rey ay nit taxul nga gañe leen est-ce que li nga leen di reyee li nga bëgg am nga ko xanaa xamu leen bu doon tey pexe yéeféer yi la ñun fii ñu toog di tafsir sax duñ fi daw pexe yi par exemple suñ doon joxe benn misaal dong ci Sénégal yéeféer yi li ñu bëggoon ci Sénégal France li mu bëggoon ci Sénégal est-ce que loolu am lu nekk def na ko fi coloniser nañu te lañu jàng alxuraan tabax ay jardin d'enfants tabax ay école primaire tabax tabax def lu nekk baare yàq jàpp sëriñ si rey ñii mu exiler leen ñii mu def leen ay résidence surveillée jàpp góor ñi def leen ay jaam ah jaay mais ba léegi tey boo duggee Sénégal booy tukki sax ngay kontaan dëkk boo romb da ngay gis soorooru dëkk ba wala loolu moom ndeysaan xéewal la ci Sénégal problème bi nag mooy jikko ji mais buñ leen yaraatoon ci diine nga gis dëkk dëkk jullit moo fi nekk ndax doo fi dem 40 mètres yoo gisul soorooru jàkk wala wala juma te dëkk bu gaa yi njëkk a samp su gaa yi amul jullikaay du ñu toog même bu dee baraak sax wala seng danañ ko fa def kon gis nga kon ndeke ndam bi du question rey rey di rey deret bi di tuuru non ndam bi mooy est-ce que li nga bëggoon am nga ko te ba léegi gis ngeen ni ñaa ngi jaamu yàlla donte ne mbon mbon bëri na vague mbon gi bëri na saa yoo duggee ci jàkka di nga ko fekk jullit yi ñu ngi góor-góor kon loolu mooy yàlla subhanahu wa taala lim nu wax li bon bon di bëri yëpp jullit ñaa ngi existé ba tey ci kaw suuf te po terewul lu nekk jaay nañ leen ko ci yàq lu nekk def nañ leen ko pour jeexal leen mu ngeen am na politique yoo xam ne mooy lan mooy jeexal jullit ci kaw suuf léegi loolu mooy li xew comme xam na ne mënatu ci dara ngeen di fexe jullit yi jeex moo waral bombardement yi ngeen di gis moo waral feebar yi ngeen di gis moo waral waame yi ngeen gis nit ñi di jóg di dem ci géej gi di dee ñoom ñoo ñoom la neex de bu la neexoon frontière bi kenn du ci taxaw géej gi kenn du ci dugg mais ñoom la neex da ngeen leen di bàyyi rek ngay dugg di dee bu bu bu bu ñu bëri dee na ngeen doog a wax bombardement yi tamit kazaalik feebar yi tamit kazaalik ak ba pare yeneen yu ngeen dul yëg def ay poson ci ay lekk ak def yu kenn xamul pour jullit yi jeex waaye yàlla moom moom àddina bi yàlla moom moom jullit yi yàlla moo leen di aar yàlla moo leen di défendre ila an yarisa allahu al ard wa man alayha jullit dafii nekk saa yu ñu noppatee gis jullit ci kaw suuf mooy suñ xëyee suba yowmal xiyaam mooy xew bu ñu xëyee suba benn bis amul ku sëpp jëm bi ci suuf billaahi wallaahi àddina bi ni muy toll ñëpp ñëpp ay faatu doo mën xiyaam day ñëw te loolu nag xam ngeen ne loolu amagul léegi nit ñi li ñu kàccoor kàccoore am na ci ñoo xam ne bu ñu déggee asalaatu xayru mina nawmi fajar jàkkale leen di fekk ñan lan yàlla dimbali boo lañ ci ñooñu walan yajal allah yàlla nee na duma def mukk lil kaafirina ñeel yéeféeri alal muminina ci kaw way gëm yàlla yi sabilan yoon kon benn colonialiste algérien dafa jàng aaya bi aaya bi mooy yàlla nee na duma may ndam ci kaw yéeféer yi colonialiste bi mu daal di mu daal di jël boroom xam-xamu Algérie yi mu def leen ci benn saal ñoom ñëpp boobu France colonisé na Algérie xeex naa ak ñoom ba rey fa un million personne ñii mu lakk leen ñii mu rey leen ñii mu dugal leen ci ay kaaw fekk ñu ngi dund ay foos waaw bu ngeen duggee ci archives yi di ngeen gis soldats yi France yi di photo di photo ak ay boppi jullit ñii ñu dagg ba pare nii ñu ko def ko nii di ko photo ay bopp sëriñ ay imam ay borom xam-xam di ngeen ko gis waa jooju lan la laaj jullit yi ne leen yéen seen alxuraan bi dëgg la wala yéen yéen a dul jullit mu ne ko lu tax nga laaj ñu laaj bi mu ne ko yàlla dafa wax ci alquran ne mu ngi nii walan yajal allahu lil kafirina ala al muminina sabila yàlla nee na du ma may yoon du ma may ndam yéeféer ci kaw jullit te ñun gañe nañ leen tey lu tax loolu alquran bi moo dul dëgg wala yéen yéen a nekkul ay jullit mbooloo mi mu ko laajoon dañu ne tekk noppi benn borom xam-xam daal di yëkkati loxo bi ñu ne ko bismillah da nga ci am tontu mu ne waaw mu ne giñ naa ci màggaayi borom bi yàlla dëgg la ñu ne ko waaw mu ne giñ naa ci yàlla moom alxuraanam ji dëgg la waaye giñ naa ci màggaay yàlla ñun ñii ñoo dëgguwul moo tax ngeen gañe ni wala saa yu yéeféer amee ndam ca kaw jullit rek jullit boobu war na xoolaat boppam est-ce que pare na est-ce que jël nay motukaayam chaque jour aussi foofu yenn saa yi bu ñuy wax loolu di nga gis ku ne non ñu mënuñu am mënuñu am ndam ci kaw yéeféer yi waaw parce que pourquoi ñaari mbir parewuñ ci parewuñ suñu ngëm suñu digganteeg suñu borom parewuñu aussi ci yor ay armes yu ñoom yor armes yu ñu yor wala xam ngeen ne borom gars yi nee nañ borom yat du xeex ak borom yat du xeex ak borom fetal voilà kon nag nan delloo si xel sunu bopp ñu xam ne yàlla li mu wax mooy dëgg waaye ñun ñii ñun ñoo war a góorgóorlu nekk ay jullit ñun ñoo war a góorgóorlu teg suñu tànk ci siraatal mustaqim ñun ñoo war a góorgóorlu xam nit ñi fi ñuy yóbbu sunu borom subhanahu wa taala dafa rëddu yoon bu yoon wi la bëgg ñu jaar ay dafa baax ci ñun ñu koy jàng guddeeg bëccëg di ko nafaraat di ko faram-fàcce parce que ñu moytandiku dafa am ñu bëri ñoo ñoo xam ne dañoo dëkk ak ñoom nekk ak ñoom di dund ak ñoom bokk ak ñoom lépp ñuy wuyoo ñun li ñuy wuyoo ne ay jullit lañ ndeke du dëgg ay naafeq lañ waaw ay naafeq lañ ongo xaaruñu ci ndam ci ñun benn ndam xaaruñ ci ñun benn yoon wala benn mbir bu jëm ci yàlla tabaraka wa taala dañuy xaar ci julli ñi rek mooy julli ñi yàkkamtuñu rek lu julli def dara ba ñu commencé bind ko ci rajo yeeg télé yi loolu nag mbirum naa fekk la naa fekk mooy def loolu dëkk ak jullit yi tuddoo ci ñoom ne ci ñoom nga bokk te di bëgg chaque jour ay manqué manqué di feeñ ci ñoom ba nga koy siiwal kon mbokk yi incha allah loolu mooy sunu dars tey yal nañu yàlla tabaraka wa taala defal tawfiq yal nañu yàlla sàmmal boppam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am nay laaj incha allah